yàlla daawuda alayhi salaam bu ñëwee borom mbay mi ne ko man dama bay sama mbay ba mu toll war a ñor te moom rek laa yaakaaroon a dund kii bàyyi ak juróom ci guddi bi mu ñëw ba yàq mbay mépp loolu nag moom lañ bëgg yow ñu yonent yàlla de nga atteel ñu ko ba xam nan laay def ba jot suma àq te saase a atte ba mu ci joxe mooy ni kon borom mbay mi dañ koy jox jur bi léegi ginnaaw jur bi borom jur bi yaa yàq na mbayum jàmbat sa mbay mi moom rek la borom yaakaaroon fa wàcce dinde kon dañoo nangu jur bi jox ko borom mbay mi léegi mooy àtte daal di ba jox ko borom mbay mi ko dama laaj moom bañ jëmee fekk Souleymane mii doom bi ci bunt bi mu laaj leen ana na ko sama baay àtte ñu leeral ko àtte boobu mun leen man de bu fekkoon ne maa toog ci jotaay bi ma toog ni mu ko àtte duma ko ne àtte bañ waxe wax jooju mu ci dawoda mu laaj mu waxe ko ñew mu ne ko ma ngi lay ñaan ci ak ndigal gi ma la jëf ak ak yoonam ci bi ma doon nga wax ma bu fekkon ni yow yaa ko tey di atte nan nga koy atte Suleymaan ne ko bu fekkon man may atte damay fa jur bi dox ko borom mbay feeg at sa borom jur bi nga xamante ne moom moom la ak juram yàq mbayum jàmbur ñu dox ko mbay mi ne di ko yéyee na laat feeg at nag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 bi ñu demee nag ba Daawuda war a toll ci ak mujjam di tànn ku ko wóotu ci nguur bi ni mu Suleymaan ak fan la jaar ba tànn ak nan la ko tànne ak xew-xew ya ca xew moom la ñuy bëgg a nettali nii Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa wax ni yàlla tabaraka wa taala dafa wàccee ab téere ci asamaan wàccee ko ci Daawuda téere ba ñu kaste ko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 ak lan mooy mbir mi nga xamante ne bu ca nit ko jàppee jaar ca fokk ne dina am lu ko naqari ci nit yan sal suleyman daal di tontu laaj yi laaj yi ko daawoo di laaj mu tontu ko ne ko mbir mi gën a jege ci mbir mooy alaakira mbir mi gën a sori ci mbir mooy li la faat ci àdduna li gën a wétliku mooy yaram wu amagoo li gën a wéet ci àdduna mooy yaram wu agro nekkut li gëna rafet ci mbir yi mooy li jëm ci ginnaaw kéefar ci ginnaaw wedd li gëna bon ci yëf yi mooy ak wedd ci ginnaaw wedd li gëna a néew ci yëf yi mooy yàqeen am kóolute am yàqeen ci mbir li gëna bari ci mbir yi mooy sikki sàkk ñaar yi nga xamante ne dañoo taxaw te duñ toog ba mukk mooy asamaan ak suuf ñaar yi nga xamante ne dañuy dox te dañu taxaw ba mukk mooy weeree jant mu ne ko ñaar yi nga xamante ne dañoo société kenn ëppale wut sa morom ñu séddee ko ca digg ba mooy guddeeg bëccëg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 waru fee mën a toog di doon bu gannaaw bu fi daa war a jóge loolu daal war sama sama nekk li defee loolu ba coono bari daa war a woon ñun ñëpp dajale borom xam-xam ya ak encadrement gouvernement bi yëpp ñu leen gis naa ni li ma def li ma sama borom digal ma wax ko dafa mel ni da ci àndut waaye léegi kon tegtal li mu leen di joxaat mooy da ngeen di indi kenn ku ne yàpp waa nga daan yor seen yàpp da koy indi bu ñu ko indee jëmbat ko fii bu bët setee ku ci aw yatam sëq am ay xob rek kooku mooy ki ñu war a wutu ñu daal d'accord ci atta boobu kenn ku ñu indi aw yat Souleymane indi aw yatam ñu fab ko jëmbat ko fenn daal di fab ay borom xam-xam ñu aar ko kenn dañ faa jaar ba bët set bañ xëyee gis ñu ñëpp seen yat dafa continuer di doon yat waaye yatu Souleymane moom dafa daal di soppiku ak garab sëkk am ay cat léegi mu daal di leen atte bi mooy atte bi yàlla atte kii yam ndax lim def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 daal di continuer rek di sàkku xam-xam continuer it di jaamu yàlla nekk ci loolu yi ba benn bi soxnaam ne ko waaw man de awma dara lu ma a xarit yow sa jikko yëpp jikko yu rafet la ku la ëpp xam-xam yëpp koy moom waaye nag am na benn jikko rek rek laa gis yow boo xam ne neexuma mooy dangaa amul alal ñàkk alal bii daal coono dund bi ñuy coono daal moom rek moo mën a yow moo tee nga woon saa boo xëyee nga dugg ci marché bi di fa sakku wërsëg ndax mën naa am nga daje faas dina yàlla ni waaye di sakku rek di jàng te jàng yàlla rek kon bi dafa métti Suleymaan ne ko man di wax dëgg ooma benn métier bu ma xam ooma benn liggéey bu ma xam bu lii may def ñu njàng mi waaye nag bu subaa ma def ba set ba xam te su bosam dem ci marché ba rek ba demee liggéey bu ko won rek du man booba mu làmbatu ci liggéey yu bari bari mu làmb ko waaye benn ci bu mën a dajal bu mën rek ëllëg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 ngelaw léeg lépp yàlla tàggatal ko ko ñu daal di ñëw nekk ci wetam wër ko daj ko wër ko daj ko kat ci biir loolu bu ñu fa la jaaroo yàlla daf koy xamal làmmiñu gannaaw yi li picc yi sat lépp mu di ko xam foofee fa la waxee ni yaa ayyuha naasu ullimnaa mantiqa tayri wa uutinaa min kulli shay wala yàlla jubloo jublu ci alxuraan di wax ni Suleymaan ba mu doon ne Daawuda dafa wax ne xamal nañu làkk picc yi te lenn lu ne am may nañ ñu ko bu ñu defee loolu nag mboolem tëyu bi daan am ci buur yi lépp di daje ci moom nit ñi daal di am ci moom cofeel nga xamante ne ak ngoram foofu la tàmbalee di bàyyam faatoo mu ànd ak soxna soosu di dem ci dëkk ba ñuy wax istaxar mu ñu faatu daawuda ak moom demee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 ñu tëj bunti kër gépp andil ko caabi bi moom mu daan indi caabi bi mu daal di dem di nelaw ba muy dem di nelaw gis benn waay bu taxaw ci digg kër gi moom jigéen jooju mu wax waaja ne ko waaw ana li nga dugal ci kër gi ndax boroom kër gi de ku fiir la na nga moytu nag ndax man man la digal ma dajale caabi yëpp tëj ko yëpp ko fa te booba jàpp nañu ñëpp kër kon nag na moytu kooku ne ko man maay ki nga xam ne danaa tàbbi këri boor yi ci liggéey bi dama jox seen ndigal man maay tàbbi ci këri yi ci liggéey ma sàkku ndigal ci ñoom li julóor bi di wax da dégg waxante la te booba mu ngi woon ci mihraab bi taxaw di julli bi mu wax jooju rek la daal di tiit daal di lox daal di wax jigéen ne ko andil ko fii di wax jigéen ñi ànd ak kooka ba ñëw daa woote ne ko amoon nga dugal ci kër bi ci waxtu wi ci mujjum ngay am benn autorisation te kenn digalu la ko jëmm ja tontu ko ne ko man mi may dugg ci këri buur yi ci nit ñi may sàkku ndigal ci nit ñi may am ndigal ci ñoom it kon yoway malakul ja ne ko waaw man mi may malakul mawt mu ne waaw dangaa ñëw di siyaare si wala dangaa ñëw di jël si ko bi mu ne ko dangaa ñëw di jël si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 mu nga xanaa xamoon ni ñoom ñoom ñi samay ndaw lañ yoo xam ne dama leen yónnee ci yow sa tur bi ci yow la jëm si te xanaa xamoon ni tur bi duñ jàll ci yow la jëm si nee na loolu la malaku nooti waxante ak daawooda door a jël ak réewam nee ci max naa moom ci la Abubakar Siddiq radiyallahu anhu di waxee ni ñu day di dañ di tàgge di tàgge di tàgge ba bis mu doon kañuy tàgge moom دليل بنو ويتر بنو ويتر هو إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ما يصابوا ينو يعني أبني وجنو كتبان لدي نيخم الجنازة لدي كل ينو لدي ينو وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول سعدين غفلي لجيت أويد أبدير نيخم الجنازة لدي ميرا ولا صاب جهد فوق كل فلليلة nee na gannaaw bu mu faatoo loolu ci la yàlla waxoon wa warisa Suleymaanu Daawuda yaa ni nubuwwatahu nee Suleymaan daal li doon Daawuda mooy doon na nubuwwa ga doon ab yonent doon na xikma ba doon ab xakim doon na xam-xam ba woon ci ga newoon ci moom it doon Suleymaan ku bari woon ay doom amon na ci ah, manam dawo da ku bari won ay dom la amon na ci ay dom lu mat ci dom ak juróom ñen waya ñen ni la yalla def mu yaral ñu ci baam ndax moo doon xam-xam ba doon xikma ba doon nubuwa ba ki wax mu xaatul wax ni ne mo moo na a mage sax bayam ak ngor mo ëpp leen bayam ak ngor dina bi toge waaye nak moo ko dàqoon a atte it ci bir lolu nak bayo doon ne gënoon bàyyam moo ko gënoon na tar ak jaam yàlla mais daaw da jamono bi ko yàlla jox nguur bi mu ngi toll ci fukki at ak ñett wax nañ daaw da jamono bi ñu doon buur am fukki at ak yooyu mu ngi yëlifoon li tàmbalee ci Saam ba dëkk ba ñu wax Istaxar am na ci borom xam-xam yi ñu wax ak nguuram yaatu woon na ba àdduna bépp moo ko yëlifoon ki ñu wax Mujaahid jëlee na ci Ibnu Abbas mu wax ni buur yi masam moom àdduna bépp ñeent lañ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 lu gudd lu yaatu am xam-xam lu bare bare bare moo tax bàyyam daan bisoog noonu ci mbir yu bari di waxtaan ak moom ci mbir yu bare bare bare yàlla li mu dégleel Suleymaan ci ak nguuram ci ay xeeti may ak xeeti daraj ci la waxee ni wala xada atayna daawuda wa Suleymaana ilma wa qaala alhamdulillahi alladi faddalanaa ala kasiiran min ibaadihi almuminin yàlla dafa wax ci alquran ni may naa daawuda ak suleymaan xam-xam ñu wax ni sant nañu mi nga xam ne moo ñu gënal ci kaw bari ci ay jaamam yu doon ay jullit suleymaan ñaanoon na yàlla nu ko rabbi firli wa habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yàlla yàlla ma jéggal te may ma nguur goo xam ne du yàlla du ñeel kenn sama gannaaw ndax yow di yoree may waa kon bi nga xam ne lu ko neex dana ko mën ko may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 moom ñu andil ko lu mel ni ab tànt tànt boobu ñu defal ko fi ab lal war fa nit ñu wër ko ñu andi baab ba yëpp ak jumtukaayu xare yëpp ñu andi ko mu wër ko saa bu mas bu loolu masaan am day daal di digal ngelaw li day daal di rëdd buñ dajalee ñoom ñëpp ci ci benn tànt japp la melni tap ba dajalo fa ñun ñepp ak bis xay yépp rek day digal ngelaw li ñu ñëw ko yépp yépp dal di naaw ak moom ba fa bërëb ba mu bëggoona dem bu demee wàccee ko foofu loolu bokk na ci li ko yàlla defaloon ci ay may muy tàggatal fu ngelaw li da ko yóbbu fu mu bëgg loolu la alxaan bind ni wali suleymaan wer la dan don ci ñuy xey diko dox mañ ko war am ngon tamit wer wu ñuy xey diko dox mañ ko xëy di war mañ ngon ci war la xey wer le la la dox defut le xey ngon ci wer la war xey ndax tàggal bi yalla yàlla tàggatal ngelaw li ko ñu xëy di saaka wax ni dañoo dañ koo net ni ni ko am na benn waaye bu wàcc ci wetu daj dexu dëj la ndax li ñuy wax dëj la ci boobu Égypte dafa am benn waaye bu fa wàcc teg fa ab téere boo xam ne dañ dañ ko bind te ka ko bind kenn ci àndaale Suleymaan dafa xamul nag ka ko bind dañ la muy ci jëmm yi mbaa ci nit ñi dal waaye àndaale Suleymaan dal ñoo bindoon bind moom mu ngi bind ñi nahnu nasalnaahu wa ma banaynaahu من دي نوت واج بكيكو واي تبخ نكون اب تبخ لرك بن في فك وكان مبنيا وجدناه اب تبخ لبن في فك رك تبني خي ني خي دك لني واخ استخر سالي خي استخر دلين دون دون فنان السام ان شاء الله ما هو لي لفتني بنك ذكي الوقت wax nañ ne Souleymane bu mësaan war ngelaw loolu di dem ci ay dëkk day digal ngelaw li ba bu àggee ci mayum jàmbur mbaa tooli jàmbur buñ fa yàq dara noonu la ko digale noonu la ko ngelaw li di jëfandikoo bokk na ci may yi yàlla mayoon Souleymane ñu wax muqaatil wax na ni yi dañu ab boo xamante ni far sax yaatoo far sax daj boobu tapit wurus la daanañ ko defar defaral ak minbar boo xamante ne minbaru wurus lay doon ci digg tapit boobu bu toogee ci kaw minbar boobu ñetti junni seer si wurus danañ ko wër ak xaalis bu ko defee ambiyaa yi toog ci toog ci seer yi borom xam-xam yi dul ay toog ci fee ci xaalis yi nit ñi wër leen dañ leen wëree ba daj kat jinne yi door a wëraat nit yi bu ko defee picc yi kenn ku ci ne da ngay andi même picc mu ci ne am na fa war a taxaw firi say leen ngir jant bi mën a bañ a agsi ngir bi noonu la ko yàlla tàggatale woon mu wax ni ci biir euh, كبير مو هالسعودية كبير صندري عندي ده بل بس يعمل ده dan bisa Allah itu tabada minggu war tingalal ni itu, ci digënté asman ak suuf yalla nako dalil na la sa nguur ndax lepp lu waxati ci lu da nga xam yoon lépp lu waxat yi ak fu mën di waxee rek ngelaw dana la andil loolu wax firil la ko ba nga xam la wax ak lam wax bokk na li ko yàlla may xamal bu ñu ko xamal làkk picc yi xamal ko làkk xorondoon làkk picc yi mooy loolu moo xam ne wallim naa mantiqa tayri benn bisit mu am sax ànd ak béréb bi ñuy dox ba àgg ci xuru xorondoon ñu dégg xorondoon bi ñuy wax ni yaa ayuhan namlu وابنكم ومساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون benn farandam bi wax ni yéen farandam bi dugg leen ci seen kër bala ñu Suleymaan a moxañ yéen ak Suleymaan ak i soldaaram bala ñu leen a moxañe te duñu yëg sax ne moxañe nañ leen Suleymaan dégg waxi farandam boobu daal di nuyu dugg yéen gëm yéen ci noonu ko yàlla may bàccee tag ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya yàlla yàlla na may xéewal bi ñu ma xéewalee ma sant la ko xéwal bi nga ma xéwalee maa sama ñaari waajur yàlla nañ ma mën a may ma sant la ko waaye dem bisit toog na ba mu jàgg am te ci sat nee naa ne xam ngeen te ci ma ngi li mu wax ah dañu ko déedéet mais dafa wax ni jur leen ngir dee tabax leen ngirub ràpp li ngeen di jur ci dee la gën waaye tabaxit ci ak rek la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 ngir loo jëf rek moom lañ lay fay benn bés ku ci ñuy wax xëdd xëdd sab sama mu wax ne xam ngeen li ku ci ñuy waxa ñu ne ko laa yarham laa ku dul yërëme déefu la yërëm leneen ku ci sab mun leen xam ngeen lu mu waxa ne ko déedéet mu ne dafa wax ne jéggalu leen yàlla yéen way bokkaale yi yéen way tooñ yi am benen ci ci fat Suleymaan laaj ni ndax xam ngeen lu wax ñu ni ko déedéet mu wax ni dafa wax ni lepp luy dund rek dana dee lepp lu yeesu ci màggat bi dem am benen ci ci mu fat Suleymaan ndax xam ngeen lu wax ni ko déedéet mu ni dafa wax ni def len lu baax ndax da ngeen ko fekk ci seen kanam lu ngeen def ci lu baax rek da def ngeen ko fekk lam tabax fab Suleymaan ndax li ñuy wax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet ñu day wax ne subhaana rabbiyal a'la mil a samaihi wa mil a ardihi muy day day wax ne sab mooy soril naa yàlla lépp lu yële wut ak man di ko sabbal li fees asamaan ak li fees suuf am na ci ci musab Suleymaan ndax li ñuy wax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet ñu day wax ne subhaana al hayy allati la yamutu abadan tudd naa sellug yàlla nii dund te du dee demuk ab baaxañ sab mooy ndax xam ngeen baaxañ bi lu mu wax mu ne ko déedéet mu ne dafa wax ni yal na yàlla rëbb tooñkat yi am na yeneen picc mu sab mu ne ndax xam ngeen lu wax ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax dana dee yàlla xam wax ñu ni ko déedéet ñu ne dafa wax ne kara ñeel na koo xam ne àdduna képp sa itte ñu ne mos na loolu la ñuy lépp ngoo mu ne xam ne mu ñu ni ko ñu day wax ne rabbi al tudd naa sellal sama borom li ñu àjjee sellal loolu bokk na ci xibaar yi xibaar ci xollim naa man taqat tayri jooju yàlla natt ni ci ya alquran wax ne wax na mbolo ma leen xamal nañ ma làkk picc ba tax na lepp lu sab bu ko déggee dana leen mën wax ni len loolu nangam la ci jublu wax nañu Suleymaan benn bis génn na di sàkk ndox maanaam génn ca ëpp ba di julli ngir di baaw naan mbooleem nit ñëpp ànd ak naan ak mbooleem mbooleem mbooleem jinne mépp ànd ak moom nee na aw xorandoom romb ko Suleymaan dégg su xorandoom moomu di wax ni allahumma yow buur bi ana xalqun min xalqika man day mbindeef laa ci say mbindeef laa xinaa lanaa an risqika te it uma benn walis sa wërsëg fu ma mën a amee wërsëg rek yaa ma ko wërsëgal falaat waa xis naa bis na bani adama kon yàlla boo ñu jàppee bàkkaari doomu adama yi ñuy bàkkaaru ba tax ñu tëye ndox mi waasqinaa yàlla na ngeen mànd Suleymaan taw bi dafa tëju ba mu ànd ak mbooloo mi ñu dem ci julliwukaay ba di julli ngir di ñaan yàlla mi may leen am ndox ñu dégg xorondam muy wax loolu di wax ni yow yàlla ñun day ay mbindeef lañu gis aw xorandoom xorandoom wa day wax ni yàlla ñun day ay mbindeef lañu bokk ci seen mbindeef te it dina am mukk wenn wërsëg wudul sa wërsëg kon yàlla doo ñu jàppee bàkkaari doomu aadama yi yàlla na nga lu màndal nee na bi mu waxee ne ku leen noonu daal di wax ñu ko war ñu leen dellu leen ndax màndal nañ leen ci ñaanuk ñu ñu dul yéen ñaanuk xorandoom yooyu la yàlla wuyu bala dañ di sottil am ndox wax nañ ni Suleymaan am na benn xorandoom day masa yéeg ci kawam Suleymaan jël ko sànni ko ci suuf mu rot xorandoom moo daa ne ko waaw ni cong ni cong ak ñi japp gu tar mu lan la sama ni man ni jaamu jaamu bi yalla ni ngay jaamu la man jaamu bu jigéen la bi ko waxee loolu Suleymaan dal di xam ba mu ni ko ñu andi leen ma xorondong wa ñu andi xorondong wa Suleymaan laaj ko soo xorondong wi ni ko sama der

te bañ a see sóobu ci say bànneex ak ci say ree booy reeti it nga bañ a ree ba tekku te sa daraja ji nga bañ ko wane ci kenn nga bañ a tee wan kenn daraja ji nga am su dee man ni def naa loolu yi xool na ko kon jéggal naa la yi bokk na ci xibaar yi mu indi yi dox ci diggante Suleymaan ak dabba yi nga xamante ne ñooy dox ci kaw suuf yi diggante xorndoom yi ak yi demee ñoom borom xam-xam histoire ñu wax ci sees bi nga xam ne bu toogee ci sees bi ñuy àttee yu nag ñetti junni sees la teg ñu wurus fabaat yenn toll ci xaalis mu wër yooyee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 li kenn gis ni foofu yëndar bi jaare ci li ñuy wax hëdd hëdd mo fi daan top mu daal di wax ni ma li la aral hëdd hëdda am kaamin al ghaibin ana lan mo waral gisuma fi hëdd ni wax ni tam jamono bobu mo ngi njiitul ci yëpp mu wax ko ba mu ni go ana lu tax hëdd hëdd dukk ndax ya ko yoni tam na ko déedéet wax deug xoma fi dem de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 ba ko Souleymane digalee mu dem ba fi mu daan taxaw ñu ko xoolal ma xut xut fu rek mën ko mu dem ba ca kaw ba tiim suuf si ni ku tiim labam xool ndijoor ak càmmooñ gis xut xut mu jógee wàllu bi yaman di ñibbisi moom xoob moom ñu daal di fàq rek gàttali bi ko ak doole dëgg bu demee rek dal ci kawam ak doole ba mu demee ba jub ko xut xut ñaan ko ni ko noonu la ci kàttanu yàlla mi nga xam ne moo la def la ëpp ma doole ba léegi nga mënal ma ko noonu la ci kàttanu yàlla nga yaram ma def lu ñaaw ko waxee xoom ñu daal koy won gannaaw ñu ko tus kare ñeel na la yow merloo nga buur bi tey ji ndax xëy na di laaj ba wax na ne dana la mbugal mbugal mu tar wala mu rend la daan ko acca nañ dem nañ ñëw ji ndax ñu yàkkamti na lool xëdd fa du ak xoob moom yi ñuy naaw jëm si ci Suleymaan bu ñëwee ba ak agsi ci soldaar yi ñoom ñëpp ñu dajeek tan jóg ak picc yëpp ñëw ak hëdd ko ana foo demoon tey jii lu la tax a yendu àll ni ko tax nga ba góor bi mer na ba tëkku na la daal koy wax li Suleymaan wax bu ñu waxee Hudhud ni leen ndax setteewut moom yonent yàlla bi ndax amul lan lum settee su ma ci jaaree moom dana mën danaa mën a mucc ñu ngi ko aha kay ne na ne bu wala boog ñu da nga koy indil lay wu wér Hudhud daal di ànd ak ñoom daal di dem ci Suleymaan bu ñu demee ñu ngi ko fekk mu toog ca bi ba mu daan toog di àtte nena xob ni dal di wax ci yalla sulayman ne ko andil naa la hud mi ngi nii hud hud demee ba jege suleymaan dafa yural bab bi mu dem suuf mu wacce ay lafam ñuy diri ko ci suuf ci ngir torox lu gum torox loolu sulayman sulayman taalal ab loxoom mu dem ci hud hud da di koy japp ci jiddul xecc ko mu dem ci ci mom ni ko ana foone ko dina la mbugal mbugal mu tar xulhim ni ko yow yonentu yàlla fàttalikul bis bi ngay taxaw ci kanamu yàlla ndax ni jamono appee doole noonu la appee doole bi mu waxee kàddu googu mu gis kenn gi Suleymaan mu dal di ndox daat koy jégal daal ni ko nag lu la tax laa doon wax ko ko ci kàddu gu sedd rek xulhim ni ko أحبت بما لم تحب به كم نكو القرآن نفسه ما يخمنا لو خمت وجئتك من سبأ بنبأ يقين أنجبنا لا جيبي تبر بني وخ سبأ بك بني وخ سبأ أنجبنا لا فخبار بور مي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء أكنا فجلين ويلف لين تأمنا منه تجين بنية بلخيس بنت بشرخ بسلخ moom mooy kañ daan wax alhazhaz wax nañ ni balxiis aw turam mooy balamatu bintu saraxil nattal yooyu moo ci am ibnu jabal ibnu albasrax ibnu alhars ibnu qays ibnu sanaa ibnu yasjuba ibnu yaxruba ibnu qaxtaan wax nañ ni bàyyi balxiis di buur boobu dafa doon ab buur bu tuddoon albasrax ñu di ko dàkkantale alhazhaz mu doon buur bu mag suufu si yaman sépp moko mom da daan wax buur yi nga xamanteni ño ñoo ci ceeg moom te dend ak mom bokk ak mom ay frontière ne leen kenn ci yeen du sanab nawle ba tax na dama ci jël doon kenn ci yéen jamono boobu nak wax nañ ni jinne yi daanañ gisee ak nit ñi ray li am ci sen digënté amu ci woon ba dafa mujju mujj ci soxna jinne su tuddu rayhana bintu shukri am ca benn doom bu tudd Balxama te mooy Balxiis waaye nag amul beneen doom bu dul Balxiis boobu ñu luy dëggal lii am na ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dëggal xibaar bi ñu jële ko ci abi Hurayra radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi nee na bàyyi Balxiis kenn ci ñaari way juri Balxiis jinne la woon bi bàyyi balkis faato te amul doom ji góor ju ko wotu balkis xeenee ma toog fi bàyyam toogoon ban nguur gi sàkku ci mbooloo mi ñu jaayanteeg moom sàkku ci ñoom ñu topp ko ndax moom mu continue nguuru bàyyam am ci ñu ànd ak moom topp ko waaye ñu ci des lànk daal di tànn beneen waay boo xam ne ci encadrement nguur gi la bokkoon ñu ko yow yaay dem suñu buur yow la ñuy jaayanteel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 xamee moom ma ku dul xamee moom ku dul yow ndax yow mii xam naa ne sama nawle nga mën nañu def ku tedd nga it ni ko kon da ngay dajale sama encadrement gouvernement waxtaan ak ñoom ci ni dañ bëgg takk daan may labat lu boobaa ñu fasal ma la mu doon sa soxla waa ji dajale encadrement gouvernement baptiste bépp wax leen ko ñu ne ko ah jàpp nañ ne buur bi de du nangu lool de balxiis bu d'accord ci lii sëy ak moom waaja ni leen man ci boppam moo sàkku ci man ma ma dañ ci ko li ma bëgg daal mooy ngeen jàppale ma ci ah waa gouvernement boobu dem ci balxiis wax ko loolu bur bi wax balxiis ni leen waaw ndax dama bëgg doom ndax biir sàngama ñu biir bi yàgg ñu li may dund ci àdduna te amu doom te doom laa sopp moo tax ñu bëgg waa ji denc ma mu daal loolu daal koy fas daal koy togg jox ko waa ji ngi ànd ak ñu bari bi muy sëy ci ay surgaam ak i encadrement gouvernement bi ba kër yëpp fas dell waaye bi nga xamante ne bala fees ñëw na ba wéet ak muy buur boobu daf koo jox sàngara mu naan ba màndi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 sëy bi lépp kat ay war a nekkoon ci biir ak i pexe rek ñu daal di dajale ñu ñëpp dem buntu kër balxiis daal ni ko nguur bi yaa ci gën a yaay waaje ndax sa bàyyi moo fi doon nguur te waaje ay mbiram ko woon fenn balxiis ñu leen dama am kersa lool ci ni ngeen jëfandikoo ak yéen ni ngeen jëfandikoo yéen wax gis naa ne yàq ga tasaaroo ci àdduna bi daj ci kat te loolu lépp moo ko def léegi nag ak fiir dal ma ci sama nguuru baay gi di yàqu moo tax ma def lii def mu daal di jaayanteeg moom Balxiis mu doon buur bi léegi ak nguuram daal di mat sëkk ci suufu si yaman soo si kenn nekkatu ko kuy xëccoog moom jële ci ibnu maymuna mu wax ni jële na ci xasan ibnu ali mu jële ci abi bakar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 fekk naa ko moo ko nitam ñu sujjootal jant bi bàyyi yàlla li mu waxee loolu nag Suleymaan daal ni ko sananzur asadaqta am kunta minal kaadibiin waaw li Suleymaan ne Hudhud bu ma andiwul andiwul lay leer danaa ko rey penc mi ni ko nag dem naa ba saba fekk fa jigéen joo xamante ne gay jaamu jant bi bàyyi yàlla waroon a jaamu yàlla ba xasee day jaamu nag daal koy yëngal ngir ab yeneen te la bëggul kenn kuy jaamu dut yàlla Suleymaan ne ko dinaa xool ba xam da ngay wax dëgg la wala da ngay fen mooy sanao asdaqta ah, am kunta minal kaazibin daal ne ko izhab bi kitaabi haazaa fa alqihi ilayhim yóbbul ma sama lettre bi boo demee nga wàcc ko summa tawalla anhum boo demee ko jox leen ko te wan leen ginnaaw xaar tuuti dégg ba xam lu ñuy tontu dal di bind leetar ba mooy bismillahi rahmani rahim allah taxlu alayya wa tuuni muslimin dinaa bu ñu tuddee yàlla lam ca teg mooy bu leen ma jéem a kawe na ngeen ñëw jébbalu si wax ni mu Suleymaan leetar bi ñu ko yàlla waxee delluwu ci dara ndax loolu mooy mbiri yonent yëpp dañ daan bind mbind mu gàtt te jotal matali lañ bëgg lépp waaye daawuñ bind lettre yu gudd wax nañ Souleymane bi mu bindee bindee bi daf ko kaste daal ci dóor tampon muy jaaro ba mu daan sol moom lay dóor def ko ci tampon ba nga xam ne Souleymane ko bind Hudhud daal di dem بكاتب الفيس سوف سمنا كون نقول هم رب بسنا بيجن تمك سنا نتفنا في دخ انت ni damba fekk ko ca pale ba mu nekk te booba ñu ngi tëj bunt yëpp te booba saa bu ma sàmm bëgg a tëdd dañuy tëj bunt yëpp andi ko caabi mu teg ko ci ren gëgënaayam gëgënaa ko di nelaw hud hud jaar ca kaw fenêtre ya fekk ko muy nelaw jaaxaan ca kaw lal ba ñu ñëw sànnil ko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 daal di tepp lettre bi jàng picc yi daal di ànd tuuti bañ leen jege bi mu àndoo tuuti bañ jàng lettre bi mu ñëwaat ba jege leen picc yi daal di ñëwaat ba ba tong ci kaw lalu balxiis balxiis daal di toog dajale mbooloo lépp jàng lettre bi ñu dégg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 di ubbi fenêtre bi ba dakar la ñun direct waaye bëgg loolu rek danañ kii daal dox diggante nit ñi bañ leen woo bañ ñëw ba daje ñun ñoom leen balxiis ni leen inniya ulqiya ilayya kitabun karim mooy man day dañ maa yónnee fii lettre bu tedd ndax ka ko yónnee ku tedd la daal ñu leen innahu min suleymaan wa innahu bismillahi arrahmani arrahim allaa ta'alu alayya wa tuuni muslimin mu jàngal leen leetar bi ñun ñëpp ñu dégg ko mun leen yaa ayyuhal mala'u aftuni fi amri yéen mbooloo mi nag damaa bëgg yéen ubbi ma ci sama mbir mi te xalaat bu ngeen ci am ngeen wax ma ndax man kat maa kuntu qaati'atan amran hatta tashhadun mooy duma def mel ni mbir te gi da ngeen koo teewe fekke ko ñu ñëpp ñu maase ni ko ñun day nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin ñun day boroomi kàttan lañ boroom aw ayu tar lañ baat koy delloo waat mbir mi nag ne ko waaye nag wala amru ilayki fanzuru ma tatamir waaye nag mbir lépp ngi ci sa loxo loo ci diglu rek danañ ko def di bal xis xoolee ba gis ni ànd nañu moom ci delloowaat xalaat bépp ci loxoom joxaat nañ ko seen bopp xalaat ba mu ci joxe moom mooy ni innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jacalu aizata ahliha adillatan wa kadalika yafalu bëri day dëkk lu ñu dugg dañ ko yàq ña fa gën a tedd it dañ leen di def ñu gën faa tabax ndax mbir mi ñu mën koo téye bu dëgër a dëgër ndax buñ fekkee ña fa gën a tedd ñu tabaxal leen kon mbir mi dina dëgër ci seen loxo lim imam junaidi dafa way ni in al muluka bala'un haysuma hallu fala yakun laka fi aknafihim dhillu moom junaidi dafa wax ne buur yi day musiba lañ ak fuñ mën di wàcc kon fexeel ba bul kerlu ci seen ni ci ron ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا ñu ko lan ngay yaakaar ci nit ñoo xamante ni bu meree jéng def la ak ndëngte te boo leen defalee du leen neex ngeen continue ci bu yàgg ñu yokkat la wa in madaxtahumu xaaluuka taxdacuhum wastasxaluuka kama yastasxilul kallu kama yastasxalul kallu ñu ko boo leen taggee taggee ñu jàppe ko ni ay war la jàppee la ku diis comme ni nga xamante noonu dañuy sàkkoo diis aw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 ñi ko yónni woon man ñañ yónni woon man la ñuy dellusee wax nañu daf ko yónnee ay palaati wurus palaati or daf ko ci ay wurus yoo xam ne wurus yi diibaaj la li nga xamante ni yóbbu nañ saf boobu ci Suleymaan Suleymaan dig leen ni ko ubbi bañ ko ubbee muy loolu yi mu dig leen ñu ko ci yoon wa tasaare ko ci yoon yëpp ba bu ñu ñëwee fii fekk li ñu jëmee woon tasaaroo ci yoon wi danañ xam a rëy ci ñoom ko yoon dañu ko fekk mu tasaaroo ci yoon wi dañuy xam li ñoroon kon dañuy def falaate or yu ko ëpp fuuf tasaare ko ci yoon yi ba noppi li mu fi yéene ngeen delloo léegi Souleymane daal di wax foofu ni ko ërbee ni ko atumir diw na ni dimaa leen ndax alal ngeen bëgg a gare وارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون alal lañ ma bëgg gare waaye alal ji itteelu ma ndax yàlla may na ma lu gën li mu leen jox kama aataani allahu xayran mimma aataakum bihi bal antum bi hadiyatikum tafahun yàlla li ma may moo gën li mu leen may kon delloo ko waaye dinaa leen indil soldaat yoo xam bi luñ xam fu ngeen di bàyyi ko léegi ndaw li dal di wal batikuwaat delluwaat ca balxiis bi ndaw yi balxiis delluwaatee ca balxiis jóge ci suleymaan xibaar ko li xew balxiis dafa gën ni kii de du duur gën naa ni kii du duur te it xam naa ne amuñ ci moom kàttan dal di gaaw yónnee ci Souleymane ni ko dina ñew set ci la ànd ak ñi nga xamanteni ne sama encadrement bu ma xoolee sa mbir ak li ñu nuy woo ci dina bi ñu nuy woo jëme bu mo doyee dina jëglu ci dal di digle ñu lem lal bam daan tok mom balxi sees ba mu daan tok ñu digal ko ci am neeg ni ko tëj ci ay gaal ba mat juróom ñaar ñu tëj ko fu ruqe ci biir plein boobu daal di tëj bunt yépp daal di wax ay gardien ñu nekk fa di ko garde mu daal di wax ña koy war a wutu ca ngor ga ni leen watul leen ma watul leen ma sama sama bagage bopp yi ak sama seesu nguur bi nga xamante ni ci laa daan toog ñu ngi ko wattu bu baax fexe leen bu ci kenn àgg bu ko kenn gis ba mu ñuy del siwaat daal digle benn waay bu wër ci biir nguur gi di woote di digle ñu balfiis nee ngeen ñëw ndax dafa am tukki bi ñu bëgg a def boo xamante ni mbooloo ñëpp ci lañ di mbooloo ñëpp dajee mu daal di jóg ñëpp war ñu gëm ci Souleymane te mat nañ ñi nga xamante ni encadrement yi rek mos nañ fukki junni ak ñaar ci góoru yaman ñi nga xamante ni ñooy encadrement yi ko wër nga xamante ni ay góor yu ndaw lañ ay kàngam ku ci am téeméeri benn kàngam bu ci am nga téeméeri ci ay soldaar yoo xamante ni ay xeexkat lañ Ibn wax ne Suleymaan moomu dafa doon waa ju teyu ju raglu maanaam nga xamante ne boo ñëwee ba jàkkaar la moom rek doo ko ñenee jëkk wax dara ngir ragal gu nekk ci moom bala nga ko bala bala ngaa wax ak ñun daal moom mooy kiy jëkki laaj bi bu tàmbali wax ji rek doo ko ñemee jëkk nekkoon ci moom danga gis mu génn toog ci sees bi moom Suleymaan daal di gis coow lu bare bari ak mbooloo wax ni lii lan la ñu ne ko la mu ne ah waa balkiis moom fexee ba fii moo moo ñëw ba agsi fii ñu ne ko waaw léegi Suleymaan daal di wëlbatiku mbooloo mi jàkkaarloo doon ni leen ayyukum ya'tiini bi arsihaa qabla an ya'tuuni muslimiin kanti memang mo man andil 16 mum dan tok ngu 16 la ngoram muy aksi lim waxe lolou jann ma ko ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik qaala ifritum min al jinni te mooy ak njuuma gu bokk ci jinne yi ne ko ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa inni alayhi la qawiyun amin benn njuuma bokk ci jinne yi ku jommale woon ne ko man mën naa la koo andil jëf lay jóge fii nga toog di àtte dañoo wax ni toogaay boobu mu daan toog fa muy toog dana fa xëy toog ba digg bëccëg Souleymane ne ko loolu dafa yeex ka fa nekkoon te bokk ci ñi am xam-xamu euh, yàlla lu ëpp ci mu fassiroon yi wax nañu mooy Asif bun Barxiya moom la jubloo junj foofu yi ñu wax qaala alladi indahu ilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk Asif bun Barxiya moom mi nga xamante ne dafa amoon xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla am na ñu wax ni Jibril la waaye Asif moom moo gën a siiw ci tafsirkat yi wax ko ne ko dëkk sa bis di del si ci yow mën naa laa andil fees bi ci sa kanam bu mu ko waxee Suleyman xool kanamam gis fees bi ci kanamam bu nguur googu nga xamante ni ci la bal Balqiis daan toog nguur Suleymaan daal ne haaza min fadli rabbi lii day sama ngëneel borom la lu ma lu ma defal ngir di ma ci nattu ndax damay sant xéwalam am dama koy wedd waaye nag ku sant yàlla day na nga xam ne sa bopp ngay santal ndax loolu yi sa bopp rek nga ciy jëriñ yàlla cant gi ko jëriñ dara te ku ak cant lay waaye ku wedd it day sama ku doylu la wala sa cant googu du ko wàññi dara bi mu waxee loolu nag daal ni leen lëntal lañ leen ko seet bi ba xam dana ko xamam def muy da ngeen ci dolli dara am lu leen ci wàññi li féete woon kaw ngeen def ko ci suuf li féete woon suuf ngeen def ko ci kaw ba xam bu ñëwee dana xam ba xam moo ko moomam def loolu lu ci Suleymaan jubloon mooy nag nattu xelum jigéen ku ñu wax wax bu mu mën a bi ak muhammad ibn kaab ak ñi di ñoom ci borom xam-xam yi dañu wax ne li sabab suleymaan di nattu xelam jigéen jooju seytaane yi mu yëlifoon ak jinne yi dañ doon ragal bu jigéen ji ñëwee mu denc ko bu ko dencee mën naa am mu am ci doom joo xamante ni dana tax mu jox jigéen ji sërrëb jinne yi yim leen note ba tax duñ ci mën a jóge kon dañuy tàggatu di continuer abadan ak Souleymane ba fi Souleymane jógee ñu continuer ci ay sëtam di tàggatoo ñu ni loolu yi lañ doon bañ moo tax ñu bëgg a dox diggante Souleymane ak jigéen ja daat ko koy ñaawalal ñaawalal ko jigéen bi ni ko amut xel mu rafet moom jigéen jooju te ñaari tànkam it tànk yi dafa ñaaw ba mel ni yooyu mbaam maanaam noonu lañ ko waxee Souleymane ni ko tànk Balkis moomu dafa ñaaw ba mel ni yooyu mbaam tey xel mu ñaaw la yor loolu lépp bëgguñ lañ ca doon bañ mooy rek Souleymane takk ko doom bi ci juddoo yoo xam dana continuer di leen mat ñoom jinne yi borom xam-xam yooyu wax nañ li sabab Souleymane nattu Balxiis di ko nattu ci noonu di ba doon seet am xelam ba xam li jinne yi wax dëgg la wala déet ñaari tànk yi yëpp muy yeel yi lañ ca wax dana ko nattu daal di digle ñu tabaxal ko benn sarx lu bëri daan tabax la loo xamante ni moom da koo tabax tabax seen yéemu nga da ko def weer ak i karo ba nga xamante ni ku ñëw ba tiim ko da ngay jàpp da ngay bëgg a dugg ci lëkkum géej te fekk ne weer la loolu tax Souleymane ni sees bi fab li woon kaw def ko ci suuf li woon suuf ngeen def ko ci kaw ma natt ci am xelam ba xam bi jigéen ñëwee ba si mu ngi benn benn njuma ci jënd yi ci bi Souleymane waxee ni ayyukum yaatini bi atiha qabla an yaatuni muslimin qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taqum min maqamika wa inni alayhi la qawiyyun amin am ben njuma bu bokku ci ko am katan ne ko man de mën naa la koo andil jëkk ngay jóge ci sa jotaay bi nga toog di ci àtte ba digg ba ci te boobu bu ma san xëy toog dafay toog ba digg ba ci mu wàcc mu ne ko fii nga toog balaa digg ba ci bala nga fay jóge mën naa laa andil sees bi li goog yi la borom xam-xam yu wute ci nem tudd wax bi nee na mi ngi tudd kóode yi am ko ne Shuayb la tudd am la tudd moom moo wax ni man àttan naa ko mën naa ko bu wér-wér waaye Suleymaan ne ko lu gën a gaaw laa bëgg dafa amoon xam-xam bu bokk ci xam-xamub yàlla te ñu ne nañ Jibril la ñeneen ñu ne benn malaayka la ci malaayka yi koo xam yàlla daf ko boole woon ak Suleymaan mu di ko jàppale am na ne déedéet ci bani aadama la bokkoon ñu ëpp ci mufassiroon yi wax nañ ni ñu ngi tudd Asif ibnu Barqiya ibnu Sanuya ibnu Malkiya ak Siddiq la woon dafa xamoon ismullahi al azam ba lu mu ko ñaan yàlla wéyu ko lu mu ca laaj yàlla it mu jox ko asif bu mbar xiyaama mu ni ko ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk bis bi nga yëkkati di ma xool bala moo delsi ci yow mën naa la ko andil daal di andi sees ba mu teg foofee Suleymaan daal di wax ne haza min fadli rabbi li dee sama ngëneelul borom la lépp lu woon yaa ashkuru am ak akfur daf ma ci jubloo natt nag ndax kuy sant xéwal laa wala dama koy weddi waaye nag ku sant xéwal day sa bopp ngay santal ndax loolu yow rek lay jariñ du jariñ yàlla dara ku weddi it sa bopp ngay lor waaye du lor yàlla dara yàlla ku doylu la walis cantuk nit ñi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim daal wax nañ ni nakkiru laha arsaha mooy fees bi fexe leen ba fakk ko fakkal ko ko maanaam da ñu ci dolli dara am lu ngeen ci wàññi la féete woon kaw ngeen def ko ci suuf lu féete woon suuf ngeen def ko mu féete kaw ñu xool ba xam ndax dana ko xàmmee wala déet ñu xam ci ba xam ku amum xel la walla ab jaahil la ñu wax ne Suleymaan li taxoon mu jubloo nattu xelum jigéen jooju yi saytaane yi dañ doon ragal bu Balxiis ñëwee mu denc ko te bu ko dencee doom juddoo ci seen diggante mën naa fab mbóot mi ñu leen noté jox ko ko te bu boobaa tàggat bi mu leen tàggan tàggat ñoom jinne yi ak seetaane yi day continuer abadan continuer ci ay satam loolu yi lañ doon bañ moo tax ñu bëggoon mu bañ jigéen bi ñu ne ko jigéen bi ku ñaaw am xel la ay tànkamit dafa mel ni weyi mbaam weeye moog weyi mbaam ñooyam Suleymaan nag li mu jublu mooy nattu xel mi ba xam dëgg la ku amum xel la wala ku ñaawum xel la boobu moo tax mun leen nakkiru laha arsaha li nanzur atahtadi am takunu min al jahilin am takunu min alladina laa yahtadun mun leen fakkal leen ko ko ma xool ba xam dana gindi ko wala ci ñuy dul gindi ko ñu réer ñu ci lay bokk ba mu ñëwee ba ko Souleymane nattoo ne ko ahakasa ah, xarsu ki ndax sa sees ba nga daan toog di atte ni li mu xool ko waaye ci xelam mu rafet saxalut ni lii ab ma ndax fam ko bàyyi woon ruqe woon na lool ba waaye weddi wutit ni sees ba ndax am xelam li ko indil mooy lu ci ne lu ne war naa mën a nekk maanaam mu taxaw ci diggante bi tontu ko ne ko ka na ko huwa daanaka moom rek waaw Souleymane nag yàlla nett ni moo wax ni wa uutina al ilma min qabliha wa kunna muslimin may nañu xam-xam jëkk ko te nun ay jullit lan wa saddaha ma kaanat taabudu min dunillah mu dox diggante mag lam daan jaamu nag bàyyi yàlla mooy daf ko daal di woo ci ak ngëm ba nangoo jébbalu moom balxiis daal di wax ni rabbi inni zalamtu nafsi tooñ sama bop wa aslamtu ma suleymaana lillahi rabbil alamin tooñ sama bop legi nak jébbalu naa ànd ak suleymaan ngir jëm yàlla mii borom bi def bal xis bi bim jébbaloo sulayman jubloo set lañ ko waxon ci bal xis ni ko manam dafa yor we yu melni ni weyu mbaam bi mu mu woko am lu doxale doxalee diggante mom lo loo ab sarh la bo xamante dañ ko tabax te ni ko ba boo ñëwee ba tiim ko dangay jàpp ni am ndox la fekk ni verre la Souleymane tooge fële ni ko duggal ci biir te ñëw mu daal di wokk ay tànkam jàpp ni ci biirum ndox lay bëgg a xuus pour mën a jàll ci Souleymane Souleymane daal di xool tànk yi ngir doon seet ba xam lañ ko wax dëgg laa am waaye gis nañ tànk yi rafet la yor waaye nag yeel ya dafa sëq ak kawar Souleymane daal di mun ni ko du ndox innaha sarhun mumarradun min xawaaris ne ko sarxu la bo xam dañ ko orné ci weer waye do am ndox dañ ko tegum ndox waye du ko fay fekk na lam bindoo sat gis na bi ñëwee ba tok ci wetu Suleymaan dafa wax Suleymaan ne ko dama la bëgg laaj dara Suleymaan ne ko laajal mu ni ko ndox mu mën a màndale moo xam ne mas na ci jële ndox mu bari te du bàyyi ko ci suuf si du du ab bët bu demee ci suuf du am ndoxit mu jóge ci kaw asamaan taw ndox moom yi mën la bi mu ko laajee loolu te Suleymaan lu ñu ko mësaan laaj lu ko jaaxal lu mu xamut day dajale nit ñi laaj leen ko buñ ca amee xam-xam baax na buñ ko ca amut mu dajale jinne yi laaj leen ko buñ ca amee xam-xam baax na buñ ko ci xamut mu dajale seytaane yëpp laaj leen ko ba mu demee ba àgg ci seytaane yi laaj leen loolu yi ñu ne ko loolu jàpp ni la ndox moom mun leen ana nan lañ mën a amee ndox mu demee noonu ñu ne ko dangay dajale fas yëpp digal leen ñu daw ba ñaq buñ ñaqee seen ñaq woowu nga duy ci ay ndab su ñaq woowee buy toq rek nga fexe ba ñaq woowee nga siital ci ay ndab bu mu fees kon ndox moom yi dana doon ndox moo xamante ne bàyyi ko wut ci suuf te bàyyi ko wut ci kaw asamaan bi mu laajee seytaane yi ñu tontu ko loolu yi mu daal koy tontu balxiis ne ko ndox moomu nga xam ne jógee ci suuf ci asamaan mooy ñàkk fas balxiis ni ko wax nga dëgg dëgg daa ni ko waaye li ma bëgg nga xibaar ma ko après loolu mooy ndax yàlla ku am la ak ginnaaw bu mu amee it ban tegtal laa ci nga jox ma tegtal mu yàlla ku am la rek laa bëgg bi mu waxee loolu yi daal di tiib wadde ci kaw lal bi daal di sujjóot mel ni ku xam ba am xelam dem balxis dal di jóg soldaar yam àndoon yëpp dal di tasaaro jibril alayhi salaam dal di ñëwal Sulaiman. ne ko yaa suleymaan sa borom nee na lan mooy sa bir ci lan nga nekk ne ko jibril sama borom bi moo ma gën a xam li ma nekk li jigéen ji laaj ba xamloo ma ne it moo ko gën xam jibril ne ko yàlla nee na nga dellu ca sees ba nga toogoon toog ca te yónnee ci jigéen ja mu ñëw mook ñi fi teewoon ci say soldaar ak i soldaaram ci say encadrement ak i encadrement na ñëpp teew nga laaj leen jigéen ji lim la laajoon nga laaj leen ko ñoom ña ko wër ak ñi la wër ba xam lu ñu la ciy tontu Souleymane daal di def noonu toogaat ci ab seesam yónnee ñu dajale mbooleem soldaar yi bokk ci ak nguuram ak soldaar ya bokk ca nguur jigéen ja ba ñëpp teewee ci kanamu Suleymaan kenn ku ne jël sa place Suleymaan laajaat jigéen ji ne ko ana de nga ma laajoon lu mu doon jigéen ji ne ko li la laaj mooy ndox moo xam ni ba woowut ci kaw asamaan ba woowut ci suuf nga tontu ma ci ni ma mooy ñak ñàkku fas te loolu lu wér la mu ni ko ana leneen loo ma laajaatoon bal xees ne ko laajaatuma la leen laajaatuma la woon leen loolu rek laa la laajoon mu laaj soldaar yi waroon ñëpp ni leen lu ma laajaatoon ginnaaw loolu ñoom ñëpp ñu wax lu mel ni la bal ni laajaatu la dara loolu dong la laaj te tontu na ko da ni yàlla def leen na fàtteloo laajub ñaareel boobee ñu doon laaj nekkul yàlla man ko seeni xel ñoom ñëpp daal di musal Suleymaan ci laaj boobu bi loolu amee Suleymaan daal di woo Balxiis ci islaam te fekk Suleymaan Balxiis gisoon na hudhud mooy picc moom yabaloon gis nañ mbir moom nam nam na ko Suleymaan tàggate mu fab leetar bi ci aw sàllam ba dem jaar fa mu jaar ba jox ko ko gis nañ ne addiya jam ko yónnee woon it delloosil na ko ko ba mu xam ne kii du buur kese kese ab yonante la loolee ak sees bi nga xamante ni gis na ni yónnee nañ ko mu jóge fa ca saa si ñëw gis na it saraxu bi nga xamante ni Suleymaan tabaxul na ko yaar ba mu jàpp ne lëgum géej la te modal yem na ko ba tax mu dal di jëbbalu nangu njëbal googu ko Suleymaan di woo ba di wax ni rabbi inni zalamtu nafsi yow sama borom man day tooñ naa sama bopp ci kéefar gi ma nekkoon wa aslamtu maha sulaiman lillahi rabbil alamin léegi nag jëbbalu naa ànd ak Suleymaan ngir jëm yàlla muy borom bi wax boobu nag bi wax na ni Suleymaan dafa wax Balxiis bi Balxiis jëbbaloo ba nga xamante ne lijjanti na ay mbiram ba lépp sotti ba noppi nag mu ni Balxiis da ngay tànn nag benn waay bu bokk ci sa njaboot ndax ma may la ko ku bokk ci sa nguur ci say nit nga xamante ne sa mbokk la koo nawlonte la koo bëgg la bu ko defee ma fasal la ko nga sëy ak moom Balxiis loolu jaaxal na ko ndax jàppoon na ne buur moom wër ta sëy ak kenn ndax ëpp na loolu ba tax na mës ta jaar ci sëy kenn Balxiis ne ko waaw ku mel ni man ndax dana sëy ak góor ñi yow yonent yàlla bi ak li ma am ci ak nguur ak makama bi ma am ci sama bir sama bir nit vraiment ni ko waaw ndax ñàkk sey moom amul ci dini islam dini islam li ci am mooy noo mën a toll rek pour ngaa am jëkkër nekk ci biir kilité nit nit te sëy boobu yàllaa ko daganal ci yow dafa araam ci yow nga fekk lu yàlla daganal nga di ko araamal ci sa bopp kon fokk da ngaa war a jigéen ji daal di wax Souleymane ne ko kon seetal kon mën nga maa may bu fekkee sëy bi mënta ñàkk ñun maanaam buur buurub Hamazan ci sama ci sama biir kilifteef la nekk kon booye boo may ma ko Souleymane daal koy fasal buurub dëkk ba ñuy wax Hamazan daal koy delloo Yaman jëkkëram jooju it Souleymane woo ka nga xamante ne moom moo doonoon buurub jënd yëpp kilifa jënn yi ko encadré yëpp ñu di ko wax Zawbaana tam nekke woon ci booru Yaman Souleymane ni ko buurub Yaman bii nga xamante buurub xamataan bi nga xamante ne moom laa may jigéen ji na nga topp ci moom lu mu la defa digal rek na ko def lu mu la liggéeyloo na nga ko ko liggéeyal léegi buurub jënn yooyu nekkoon Yaman continuer di topp buur boobu buur boobu buur bu xamasaan boobu nga xam ne moom lañ may balxiis di ko liggéeyal di ko defal la ko Suleymaan waxee woon ba Suleymaan faatu alayhi salaam bi amee ay at ci ginnaaw ñu am atum lëmm jinne yi nekkoon foofu dégg ñu ne Suleymaan faatu na am benn waay bu bokk ci jinne yi di wër ci biir dëkk yooyu di ko ca kaw di wax ni yéen mboolem jinne yi maa ngi leen di xibaar ni yonent yàlla Suleymaan faat na coono yi ngeen doon tegoo mën geen koo teg nee na seytaane yi daal di dem fekk ñaari doj yu mag ñu bind ca ci làkku xem yar bind ca lii lañ ko bind mooy ñun ñoo tabax njënd lañuy wax sil xayin ñoo tabax njënd la ñuy wax ab nayin njënd lañuy wax bani na nun noo ko tabax ak sarwaax ak mirwaax ak kanxoon ak handa ak hunayda te sange yooyu yëpp ci yaman lañ nekkoon seytaane yi ñoo ko liggéey bind ci ay daj mbind moom ñu wax ni ñoo ko liggéey liggéeyal ko bool bi ñuy wax zi taba waaye demoon ko nag jënd jooju nga xam ne moo wër ci biir yaman bi yooxu wax jënd yëpp ni leen Souleymane faatu na ngeen bàyyi la ngeen nekkoon kon dañuy continuer di liggéeyal si tabax moom lañ ko daan liggéeyal waaye ñun ñëpp dañu daal di tasaaroo nguurug si tabax daal di jeex nguurug Balxiis foofu la jeexee jeexandoo ak nguurug Souleymane ci ginnaaw bu mu faatu loolu moom lañu ñu nettali ci diggante Balxiis ak agung ak ngoram ci ngoru Suleymaan jaxé fa lañ wax ni fa la jaxé légui ñu tekki ci bir xisa Suleymaan guerre bu mu daan guerre mom Suleymaan ak jaaro bi nga xamanteni mom la daan tak te yalla defoon ci sirru bu ngor ga dir bam ko ñak ak bi ko dab ci bu mu ñàkkee jaaro ba sa boobu ñu bëgg a ci alxuraan yàlla dafa wax tabaraka wa taala ni wa alxaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaaba wa alxaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaaba léegi boroom xam-xam yi leeral ci leeral yu bare bari bokk na ci lañ ca leeral jële ko ci Muhammad ibnu Ishaq mu jële ko ci lenn ci boroom xam-xam yi dafa wax ni Suleymaan dafa am benn buur bu nekkoon ci benn jasira maanaam benn dun ci duna géej gi waajoo ji mi ngi tuddoon saydoon danoon buur bu mag nga xam ne ci digg géej gi la am benn dun bu nekk benn île ba nit ñi fam nekk daanaka nit mënu fa àgg waaye la muy ñoŋ ñoŋ Suleymaan yàlla daf ko mayoon moom ci biirub nguram amut lenn ci biir jéeri mbaa ci biir géej loo xam ne dana ko ca namm te du te te mën te mënu ko am yàlla may na ko kàttan gu tane lu mu bëgg ci jéer géej gi ak jéeri ji rek dana mën a am loola moom suleymaan ngelaw li yanu ko ba wàccee ko ci biir île boobu yi nga xamante ni fa la buur boobu nekk mu ànd ak ay soldaaram ci jinne jinne yi ak nit yi ñëpp ànd ak mu dem fa xeex ak ñoom rey buur boobu yi muy saydoon jàpp ak njabootam yàlla dogal mu jàppale ci biir jàpp googu nag doomam ju jigéen doomi buur ba maanaam mi ngi tuddoon jaraada waaye kenn mës ta gis ku rafete ni moom doon ku taaru rek Suleymaan tànnal ko boppam daal ni kii moom sama soxna si bopp laa koy def daal koy woo ci islaam ne ko da ngay xale bi nangoo jëbbalu ñaari loxo suleymaan doon ab jullit waaye jëbbalu na ci kaw waaye fekk ca biir nëbb na ca ak kéefar kéefar gam nekkoon ca la continue di ca dund suleyman sopp ko jotal gu tar go xam ne mësu koo sopp kenn ci ay soxnaam place bi mu am ci suleyman it doon place bu mag boo xam ne kenn ci ñoom amu ko waaye ci biir place boobu mu am ci suleyman lépp it fu mu toll rek njàkkare li mi ngi jàq ak a tiit jamono bi fu mu toll jooy rek ranxooñ bi du fer mukk loolu diis loolu ci Suleymaan mu ne ko waaw yow di waaye jaaxal nga ma njàqare lii nga jàq ak a tiit rek fotal lu mu doon ranxooñ bi fu mu toll du fer rek am lan la xale bu jigéen bi ne ko man day damay fàttaliku sama bàyyi rek di fàttaliku ngóor gam nekkoon ak daraja ja ko yàlla mayoon ak jamono ak fa mujj rek loolu rek moo may tiitloo moo ma tax di jooy Souleymane ne ko waaye yow yàlla wóotalal na la nguur gën a goo xamante ni moo ëpp sa nguurug bàyyi googe boole la it nga dugg ci diine islam bàyyi keefe ga nga nekkoon te loolu moo gën ci yow jigéen ji ne ko waaw loolu lépp di dëgg la waaye nag saa bu ma fàttali ko sama baay rek dal njàqare lii may am moo ma koy indil wax dëgg yàlla ni ko bu fekkoon mën ngaa diggal seytaane yi ñu deseel ma sama baay yettal ma ko ab estati ba mu mel nam meloon bi andil ma ko fii ci sama biir nekk sama biir kër ma di ko gis saa bu ma xëyee ngoon gu jot ma gont gis ko kon loolu mën naa am mu dañal sama njàqare li ma nekk dana tax ma mën koo miisit man daal di digal seytaane yëpp ñu yettal ko benn estati boo xamante ne dafa mel ni baayam yattu ko niroole kook moom ba nga xamante ni moom ci boppam bu ko xoolee moom day mel ni bàyyiwuñ ca dara dara luy néew ko bari ñu andi ko ba mu xoolal ko boppam ni leen daanaka sama jëmmi bàyyi li ñu woote daal mooy li ci ak ru nekkul waaye daanaka moo man bu ñu ko liggéeyee noonu ba noppi ñu daal dem wutal ko làmbaay wutal ko tubay wut mbubb solal ko wutal ko kaala wodd ko façon koddaay bu mel ni nga bàyyam daan sol daat ko koy indil teg ko ci kanamu mu xool ba gis ni lii moom bàyyam mooy taxawal rek muy def na saa bu Suleymaan génnee kër gi rek mu xëy dem ca xërëmu bàyyam boobee mook mbooleem ñi mu am ci ay surga buñ demee di ko sujjootal bu demee bu sujjootee ñoom ñëpp ñu sujjoot ànd ak moom comme nañ ko daan defal ci jamono ba muy dund moom bàyyam ngoon gu jotee mu dem sujjootal ko ñoom ñëpp ñu sujjoot ànd ak moom mu continue ci loolu yi waaye Souleymane yegul ci dara yëgut ni ñu ngi jaamu ab xiram ci biir kër ñu def ko lu mat lu fukki fan asif bun barxiya yëgloo lii te mooy siddiq ba nga xamante ni moo yoroon ismulaay lansam moo andi woon sees ba ci jamono bi suleymaan laajee seesu ku ma ko andil asif bun barxiya ma ko andi woon te bokk ci encadrement Souleymane ñi gën a dëgg doon ci deex boole ji dégg ni jigéen jooju yettal nañ ko estati bi mel ni baayam ba mu ngi koy jaamu suba ngoon ba def na ko lu mat ñeent fukki te Asif bu Balxiya mi ngi fooroon foor gu toll ni saa boo agsee ji buntu Souleymane waxtu woo mu fi mën a agsi muy suba muy ngoon muy guddi heure bu mën a doon rek bu ñëwee danañ ko bàyyi mu jàll moo xam Souleymane a ngi ci biir wala nekku fi waaye kenn du ko tey ci mu ñëw ci Suleymaan ne ko yow yonente bi yàlla man day mag laa fi mu sama samay dem na ba sew sama dund yi jeex na wóor na ma ne léegi ma dem sama faatu daal jege na loolu dama bëgg nag am benn taxawaay bu ma fi taxaw jëkk may dee muy nga dajaleel ma mbooloo mépp ma def benn conférence boo xam damay waxtaan ak ñoom ci mbirum yàlla nett li leen xibaari yonent yi fi jaaroon tagg leen ci xam-xam bi ma xam ci ñoom xamal ci nit ñi it lañ ci xamutoon ci yonent yooyu ci mbiru yonent yi lañ ci xamutoon li ci ëpp ma wax ma mën leen ko leer Suleymaan na ko waaw daal di dajale mbooloo ñëpp daal di jóg ubbi waxtaan wi dal di leen di wax ñu leen dama bëgg am waxtaan wu ñu def ci yonente fi jaaroon yéen ñëpp ngeen déglu ko ndax ngeen mën cee jariñu te Asif bu Ndarsiya mi moo koy waxtaanee ak yéen Asif bu Ndarsiya daal di tàmbali di tudd ña fi jaaroon ci yonente yi yonente bu mu ci tudd tagg la wax li nekkoon ci yow ci ay jikko yu rafet wax la la yàlla gënale ci kaw mbindeef yi wax lépp ba Asif Suleymaan daal kon yow nag Suleymaan ñuy toog tey nag yow amut ku la dàqoon a àtte bi ngay doon ko mu ne ko waaw mu ne ko gis ku la kenn gën la woon it bi ngay ko ku la gënoon a xereñ ci bi ngay doon ko ne mu ne ko waaw mu ne ko lépp lu ñuy bañ rek dan ko ku ko sori woon nga ci jamono bi ngay doon ko ne wax ko yooyu yëpp daal di wëlbati ku dem soo naan loolu mu am ci tiitaange xol ndax gis na ne tudd na yeneen ci yëpp tagg leen ci seen biiru jamono te moom bi ci moom taggal ñëpp ñu yem ci ak ngone mu daal di woolu aasi ne ko yow day tudd nga mboolem ñu fi jaaroon ci ay yonent tagg leen wax ci ñoom aw yiw ci seen jamono yëpp ak ci yëpp man nag bi nga ci man li nga wax ci aw yiw ci man yëpp ci sama ngone nga ko wax la ci def nga noppi ca waaw lan laa def ci sama ma ci sama mujj dund gi ndax dama ca sotti ko asif ni ko jaamu nañ ab xëram ci sa biir kër gi ñeent ci fan te loolu lépp yaa ngi ko def ci topp bànneexu jigéen rek Suleymaan ne ko ci sama kër ñu jaamu ci ab xëram ñeent fukki fan mu ko waaw ci sa biir kër Suleymaan daal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man de xam naa ne loo wax rek am na ci la nga xam la nga loo xam ngay wax waaye fokk xam nga ci dara dara daal di delluwaat këram gis ni xërëm boobee mooy mooy mooy mooy jigéen dem desin loon bàyyam defee moom lañ def xërëm bi ci jaamu mu daal dem damm ca xërëm ba daal di jàpp jigéen ba ndugal ko daal di ndugal mboolem ñu daan ànd ak moom di jaamu xërëm ba daal di digle ñu andil ko yére laab ya nga xamante ni jigéen bi ko nasaan di fët rek di fat lay doon di nekk ci ak laab jigéen ju gis do ko laal mukk mu digle yéré yi yalla am yooyu ñu andul ko ko mu sol ko ak dem ci all ba yépp ko moom dong daal mu ñu andil ko ab doom fàttil ko ci ci suuf mu dem di tuub ci yàlla toog ci kaw doom boobu daal ci baddaañoo takal ci ay yére yépp ngir toroxlal yàlla rek di jooy di ñaan yàlla di sàkku ak njëgal ci moom ci këram bi ñu jaamu yóbbu bokk na ci nam doon wax yàlla nee na ko yow sama borom bi ñëlul ci aadu daawooda ñuy jaamu ku yow ndax bi nga leen defal ko defal seen yëlul ci aadu day ñu ngi saxal ci seen kër mbaa ñu saxal ci seen waa kër ñuy ñuy jaamu yow ndax li nga leen defal lépp wax loolu yi di baddaane ci suuf si di jéggulu yàlla ba ngoon jot mu jël ci këram bi mu dellusee këram amoon na benn xale bu jigéen buñ daan wax Amina boo xam ni saa bu masaan bi bëgg a dugg ci wana wa wala mu bëgg a jaxasoo ak kenn ci ay soxnaam day summi jaaro ba mu daan sol jox ko xale bu jigéen boobu yi ba noppi ba laab ba noppi door jëlaat jaaro ba solaat ko dawul laal jaaro bi mukk ci liggéey ak làpp ndax jaaro bi ñu ngi ko liggéey woon ci wurus wu xaw jibril ko indiloon ñu bind ci laa ilaha illa allahu rasulullah mu mel ni jaaro boobu yi sirrub nguur gépp dafa nekkoon ci biir jaarom boobu benn bis nag mu summi ko loolu it jox ko kam ko daan jox seytaane soppiku ba mel ni melaw Suleymaan te seytaane si defoon loolu yi ñu ngi ko daan wooyee sax melal boppam ni Suleymaan ñëw ci jigéen ji nga xam ne jigéen ji daal amu ci lan lu mu mu jigéen ji daal koy xale bu jigéen daal koy jox jaaro bi nam gën a gaay seytaane sa daal di fab jaaro ba takk ko daal di génn dem toog ca sees ba Suleymaan daan toog nganaa yeeg jinne yeeg nit ñeeg seytaane yëpp daal koy wër jàpp ni mooy Suleymaan ba Suleymaan génnee dikk ci xale bu jigéen boobu waaye aw meloom dafa daal di soppiku ca saasi ba ko ko gis di ko nattale léegi dina tëkkul jaaro lañ xamanté mom mu melni ki kii di woon dal bam ñëwee ni amina nga xalé bi jigen bobu andi sama jaaro xalé ba ne ko yaway kan mu ne ko mana a suleymaan ibnu daud mu ne ko ya mana san yow da ngay suleymaan suleymaan dik ci ba jël jaaro ba dem ba ma nga toog fee ab ses bu mu daan di ab da nga dik ci yaay suleymaan suleymaan dal di xam ñaawte biñ doon def ci kërëm muy jaamu xërëm bakat lolé rek moo këpp si ci kawam Muhammad xam ne nattu yàlla dikk na léegi mu daal di génn di taxaw ci buntu këri bani israel yi di wax ni man maay suleymaan ibnu daawuda waaye dañuy fab suuf di ko ko sëllax di ko saaga di ko wax lu ñaaw naan kii moo dof xool leen dof bii naan mooy nga xam dañuy ci wax ji muy wax ne man a ñu jàpp dof bu wër naan maay rek waaye bi suleymaan gisee loolu jaaxle ci lool ci bane israel mu mel ni xàmmeetuñ ko naan daa dof dof buy woote ak suleymaan la mu daal di génn dem ca géej ga ba demee di jàppale mool ya fay liggéey di rëbb ay jën di ànd ak ñoom di leen toxalle jën yi ñu di ko jëlee ci géej gi di ko yóbbu ca jaba di ko jaay ca marché ba bés bu set su liggéey ak ñoom ba ngoon ñu jox ko ñaari jën ba ngoon jotee bañ jox ko ñaari jënam mu dem jaay wenn wa ci aw mburu maanaam day dem joxe wenn ñu jox ko aw mburu wa ca des mu butti ko daal koy waaj daal koy dunde sax na ci biir ci biir lool yi rëbb moom yi nekk ci géej gi sax na ci lu mat ñeent fukki fan diirub diirub ñeent fukki fan yéen jaamu xiram ba ci këram rek yàlla natt na ko ko ngóor gi dañ mu dem ci géej géej di rëbb ay jën ak sonn ndeysaan di wëreelu waaye ci biir ñeent fukki fan yooyu seytaane sa nga xamante ne moo takk jaaroo ba toog fa bañ ba niiru Suleymaan bañ jàpp ne ma Suleymaan biir boobu doxalin wi wuute na lool ak doxin wa Suleymaan daan dox ñu bari ñu bari lool lool jikko yuñ gis ci moom yoo xam ne daal wuute na ak na Suleymaan daan doxe bañ am ci ak sikki sàkk Asif buñ barxiyaa mi nga xamante ni moo doonoon boroom xam-xam ba nekk ci seen biir ak boroom xam-xam yi bani Israël yépp asif moomu ñoom ñëpp jaaxle nañ ci seytaane soosi daal ndax dal doxalin bi daal dafa mel ni dafa soppi ku ba xaw a ëppi loxo ci ñoom asif dajale bani Israël ak boroom xam-xam yépp ne leen waaw yéen bani Israël ndax gis ngeen att bii Suleymaan di atte fii mu toll ni mu wutee ak atte ba mu daan atte bu jëkk ndax lima ci gis ngeen yeen gis ngeen ko ñu ne ko waaw ñu tay jaaxal nan lool ndax sopp ko gi ëpp mu mun leen kon xaar leen ma dem ci ay soxnaam laaj leen ba xam ba mu demee ci ay soxnaam laaj leen ñu leen ndax yéen soppi ko gii ma yëg ci Souleymane ndax yëg ngeen ko ci ñu ni ko guuku gën a tar yëg nañ ko ci ndax gis nañ ni genn sell rek xamuñ ko ci moom dafa mel ni rek du woon Souleymane daal daa noonu daa soppi ko aasib daal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna haasa la huwa albalaaul mubin lii day musiba mu mag daal di génn dem ci bani israil moom aasif bu barxiya daal ni leen ñi nga xamante ni kat ñooy soxnaam yee ndeke liñ xam ci soppiku gi yéen xamu leen ko ci sax soppiku gu gën a garaaw gi ñeenti gis am na ko ci biir bi ñeent fukki fan yi jeexee seytaane soose daal di jógee ca jotaay ba dal dem borom bu géej dal di dindi jaaro ba sanni ko fa daal di daw ndax gis na contre gi bari lool ñepp di ko mu xam li yef yaangi bëgg a toj ko ragal lo mu dal di gaaw genn dem sumi jaaro ba sanni ko ci géej dal daw dem aw jën wan ko am kat bu ko rebb te rebb kat bobu bam koy rebb bobu Souleymane mi ngi and ak kat bobu di liggéey ba mu banggon ba ngoon ba rëbbukat ba fa ñaari jëni Souleymane jox ko ñaari jën yim ko baaxoo jox ñaari jën yam ko jox yàlla dogal wenn woo moo wannoon jaaroon bii Souleymane jël ñaari jënam jaay wenn wa wa ca des nga xam ne moom la war a dunde ba mu ko buttee fekk jaaro ba ca biir mu daal koy jël daal koy takk def ko ci loxoom daal di sujjoot rot sujjootal yàlla sant yàlla bi mu defee loolu séroob nguur gépp daal di del si ci moom picc yeeg jinne yeeg nit ñeeg seytaan yëpp daal di ñëw wër ko kapp daj ko kapp mu daal di dem ci nit ña daal di xam ne li nga xamante ne dellu ci nit ña daal di nekk fa mu nekkoon ca nguur ga waaye mu xam ne li ko dalkat ni ñu ko dalee ci xiram boobu yi ñu jaamu ci këram ñeent fukki fan yooyu moom la ko yàlla na too mu ñàkk nguur gi ñeent fukki fan yooyu daal di tuub tuub gu sell daal di dajale seytaan yëpp ni leen andil leen ma saxr almaarit mooy seytaane soo si nga xamante ne moo sàccoon jaaro bi te fetteerlu andil leen ma ko seytaane yëpp dem wari ko ba andi ko Suleymaan daal di xar aw doj dugal ko ca biir wut weneen dëppale leen ci dëpp ko ci kawam daal di wut ay càll la ay ay ceen la wut takk ko ci ba mu dëgër mom wajjo ji mom mom setan sosu tak ko ya, ya ko bam ni ngad mu sanni ko ci bir geej gi noonu ñi la def setan ci nga xamanteni mo moo sàccoon ba lii mooy xadiisu Wahb ibn Munabbih ci li sabab nacc ko ngol sulayman bi ci ñam fi fande yi amna ku ñu wax nak muhammad al ajali mu jël ci sa'id ibn musayyab mu wax ni sulayman ibn dawud li taxone yalla nattu ko nattu boobu dafa am ñen fukki dafa am ñetti fan yu mu tëju yo xamanteni ni jaxasu wut ak nit ñi wu len lam leen war a defal defal leen maanaam atte bi ko yalla denk mu tëju ñetti fan yo xamanteni defu ci dara yalla wax yu ko ne ko tëju ma ñetti fan bayyi sama jami ci biti seetoo seen mbir kañ ca tooñ attewoo ko ba delloo ko ak tooñam waaye dinaa la nattu daal koy nattu nattu bi am na ñoo xam dañoo wax ni li sabab nattu bi mooy ñetti fan yooyu mu tëj woon te attewu nit ñi la mu leen war a atte hmm, ñu ngi ciy nett bunt bi ñu ngi ciy nett li faatu Suleymaan qaala allahu taala fa lamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu al ardi taakulu min saata فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يستوي أي واحد مني سليمان سخن تيم غور غوغي غنا بوكو يالا دل دل دل لو سي تيم غور غي غنا بوكو يالا دل لو جارو با مو سخ تيم غور غي جن يي اك شيطان يي ديكو ليغيال لوكو نيه تي اي محراب كوم ليمكو واخه من محاريبه wa tamaasiila wa jifaanin kal jawaabi wa xuduuri raasiyat ñu di ko liggéeyal lu ko neex ci ay mihraab ak i timsaal muy estati ak i bagaan ak i cin yu sax lu mel ni ay mbana yëpp ñu di ko liggéeyal ci na mu ko bëgge Suleymaan moom yi ku masaan def lu ko naqari ci seytaane yi mbaa jinne daf lay mbugal ca na mu ko bëgge ñam ci bëgg mbugal dina leen mbugal ñam ci bëgg libéré mu libéré leen daan leen digal ñoom jinne yooyu ak seytaane yi ñu yanu ay doj yu diis di ko toxal ba fam ko bëggee noonu bi yàlla bi iblis ñëw seet si leen niru jëmm ñu baax te jamono boobu ñu ngi liggéey rek sax ci liggéey boobu am ci fayda lool mu ñëw ni leen naka ngeen ñu ne ko ñun day ñu ñu tag wax dëgg atte nañ ko iblis ni leen dajji yi ngeen koy bu ngeen di dam ngeen koy yobbu bu ngeen di jël ci du ngeen andi dara ñu ne ko non lañuy def bu ñu yanu dañu koy tuxalloo rek ñu yanu yóbbu barab di kat ak suñu la neen ñu leen yeen yeen ngi ci naflay lolu kay wax dëgg méttiwul ngelaw li fa waqanti wo wi iblis waqanti ak jinn yi daal koy yobbu ci suleymaan mu dégg ko ba ko suleymaan déggee ni leen be fab doj yi di ko yóbbu ci barab sàngam boobee bu ngeen demee ngeen jële fa ay doj yu mel nangam yanu ko andi digal leen bu ñuy dem nañ yanu bu ñuy del si it nañ yanu ibnu dikkati feeñu leen laaj leen nu ngeen di def ñu ne ko bu ñuy dem dañuy yanu bu ñuy del si dañuy yanu mu leen waaye guddi gi da ngeen noppal di nelaw ñu ne ko mu ah yéen kay sonn leen yéen ngi jëm na faay ngelaw li jëlati loolu yóbbu ko ci suleymaan suleymaan digal leen ñu bañatee nelaw guddi ñu liggéey waxtu yépp iblis feeñoo ci leen ñu jàmbat ko coono bi ñu nekk ni ko guddi sax duñ ko nelaw dañuy liggéey guddi ak bëccëg léegi mun leen nu ngeen def ñu ni ko wax dëgg li nu yen li ñu nu yen de attanuñ ko ñu ko dal iblis ni leen kon ak ngeen ci dal lépp lu ko neex rek da ngeen ko ko defal lu mu leen digal rek ngeen def nga xam ne amul lenn lu mu leen digal te defu leen ko nu mu ko soobee rek noonu ngeen koy defee ñu ne ko waaw mun leen kon bu ne woon nëggandiku te xam ne léegi ko njàqare am ci seen kanam parce que nit bu àggee ci lepp luñu bëggoon amé ko nam ko bëgg rek na ngeen xamni ne ya ngay bëgg a waye bam leen waxé lolu bir bu gatt lañ sax rek Suleyman daal di faatu ibnu abbas dafa wax ni Suleyman da daan tëju ci biir baytul maqdis Dana fa teju lu mat at ak ñaari at di fa teju wer wala ñaari wer ak lu gëna a lol loolu daana ko def ñu di ko fa fekk ak ñamam di fa fekk ak lamuy naan waye du génn biir baytul maqdis ko wi yoon wi nga xamanteni moy, bi faatu gi ñewé nak bam duggé ci bir baytul maqdis tambulé moy nam démé moy bim démé ba wara tàmbali wonek ni mi ngi bëgg faatu ibnu habas neena na daf daan def sa bu xeyé ci baytul maqdis ak garab dana fa sax ci fofu muy jaamu yalla garab bu fa sax suleymaan daf koy laaj no tuddu mu ko man maa ngi garab sangam mu ko yow ana luy say njariñ garab ga ni ko maa ngi jariñ nangam ak nangam ak nangam suleymaan digle ñu dagg garab goge def ca digle ca lañ ko wara jariñu daal koy leral mbolom bu fekkee bu ñu war a jëmbat barab sàngam la mu dig nañ ko jële fii dem jëmbati ko barab sàngam bu fekkee dafa am lu muy faj mu bind ciw ko taf ko ca kaw garab gani garab yi nangam ko tax a jóg ak nangam ak nangam wax la muy faj nee na loolu yi daf ko mayoon Suleymaan ci birub nguram benn bis muy julli gis ak garab gu sax ci kanamam mu laaj garab gi ni ko noo garab gi ni ko man maa ngi tudd al kharnuba mu garab yow lu la lu tax nga sax garab gi ni ko li ma tax a birbi, mooy fas yéene ràppal béréb bii maanaam ràppu béréb bi daal moo ma tax ko wax ni ni ko taala li yuxarribahu wa ana xayyun daal ni baytul maqdis du ràpp mukk dafa melni kon sama alkane nga ma jubloo jënj ndax baytul maqdis mom du ràpp mukk tamay dund bi waxe lolou garab gi daal di buddi garab gi dem jëmbat ko ci peggu ab miram mom ñaan ni yalla yalla nga nebb jinne yi sama gede ndax nit ñi xam ni jinne yi xamuñ xayba loolu yi moo ko ñaanoon te lu jiit loolu jinne yi dañ daan xibaar nit ñi ni dañ nun ñu xam xaybu lañ bari na loolu luñ xam ci xaybu lu leen ci nëbb rek na ngeen ñu ko laaj ëllëg sax bari na luñ ci xam bu ñu waxee loolu yi moo taxoon suleymaan ñaan yàlla ni ko na nga leen nëbb sama dee ba nit ñi xam ni xamuñ xaybu ci ëllëg sa suleymaan di dugg ci biir mihrab ba di julli sukkandiku ci yat wi di faatu ci noonu yi mu sukkandiku ci yat wi ci noonu yi mu mel waaye seytaane yi xamuñ ñu faatu na ñu di liggéey di tiit lool ni bu génnee mën naa am mu mbugal leen ñu continue ci ragal googu lu mat wax nañ ni nekk nañ ko fa ba la leen xamal ni faatu na mooy dafa am ak max bu maxeel yat ba mu sukkandiku woon ba max ga ba yat wa daa daa di daa di rës Suleymaan daa di rot ñu xam ni faatu na loolu yi ab riwaaye la ci faatu Suleymaan ku ñu wax Abdurahman ibnu Zayd wax na ne Suleymaan dafa mas wax malakul mawti ni ko saa buñ la digalee nga war maa jël si nag ma ko xamal benn bis malakul mawti ñëw ci Suleymaan ni ko diggal nañ ma day ma jël si la léegi ay waxtu yu néew moo la si ci àdduna di ko malakul mawti waxee loolu yi Suleymaan daal di woo seytaan yëpp digal leen ñu tabaxal ko benn pokus boo xam ne ci verre verre lañ ko tabaxe te amul bunt mu dugg ca biir ñu ñu tabax pokus bi mu wër ko bañ ko wutal bunt daan tàmbali di julli sukkandiku ci yar mu daan sukkandiku malakul mawti fekk ko foofee jël roo gi te jamono boobu mi ngi sukkandiku ci yat wi mu faatu ci noonu wax nañ ni seytaane yi dañ ko daan wër wër mihrab bi wër jullikaay bi fu mu mën a nekk rek dañ koy wër te mihrab bi booba dafa amoon ñaari bunt benn bunt bi nekk ci kanamam benn bi nekk ci ginnaaw am na ñu wax ni seytaane yi la leen xamal ni faatu na dafa am benn seytaane bu wax morom ja ko bu fekkee ñeme nga dangay dugg ci bunt bii nga xamante ne moo jàkkaarloo Souleymane dugg ci kanamam génne ca bunt bee ca gannaaw nee na seytaane soosee dugg ñu ne daal di dugg ci kanamam génne ca bunt gënaaw ba te Souleymane waxu ko dara te Souleymane ku ko masaan romb noonu yi dugg ci biir seytaane su ko masaan def rek da ngay lakk ba mel ni sawaraal lakk ni sawar di lakki nit noonu la leen tur yàlla yi mu yor daan lakke waaye seytaane si jaare ca bunt bii romb ko génne ca bunt bee te dégguñ kàddu Suleymaan te dara jotu ko ginnaaw bi mu xool ko gis ni Suleymaan faatu na bu génn daal di xibaar nit ñi ni leen Suleymaan faatu na ñu ubbi bunt ba daal koy génnee gis ni yet wam sukkandiku woon max gi lekk nañ ko lu yàgg ba mu maxe waaye xamuñ nag bi mu faatoo léegi diir ban la ma ndax sukkandiku gi yàgg na waaye xamuñ nag diir diir bi mu faatoo lañ mu fi sukkandiku ci yàgg lépp ba mu faatoo léegi nu mu toll ñu ko ci wut aw yat tëral ko ci béréb bu ak max nekk bés bu set la mu ñu xool na muy toll ñu nattale bés yooyu ba ni kon bi mu faatoo léegi ci ak nattale normalement at la war a toll parce que ak max li ñuy lekk par bis ci aw bi ñu ko nattalee gis nañu lim ci lekk lépp ci at lay toll ko Ibnu Mas'ud wax na ni gannaaw bu mu faatoo sax nañ fa at di liggéey te xamuñ ne Suleymaan faatu na foofee fala nit ñi amee kóolute ñi ni kon nit ñi ndekete xoo eh, ndekete ndekete jinne yi dañ doon fen waaye xaybu gi ñu doon woote ne xam nañ ko ndekete xamuñ ci dara ndax buñ xamoon xay xaybu dinañ xam ne Suleymaan faatu na te kon duñ continuer ci mbugal ci coono boobu métti boobu di liggéey rek di continuer wax nañ ni seytaane yi dañoo wax max ga ni ko buñ xamoon ñam wan nga bëgg de dañ la indil ñam yi gën a neex ci ñam wi buñ xamoon naan gooy naan yow max gi dañ la indil ndox mi dàq ci ndox yi ngir sante ko ci li nga def ci maxel gi nga maxel yàlla bañ xam faatu Souleymane ndax coono bi ñu daan jànkonte ba wax nañ ni biir biir bi bi max gi maxel toujours lañ fay gis mooy ñam bi nga xamante ne seytaane yi ñoo koy indil max gi loolu yi am na borom xam wax loolu wax jooju la yàlla junj ci alquran ne falamma qadayna alayhi al mawta ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته bañ demee ba dogal dégg ci moom dara xamul leen ni deen lu dul gis rek max gi ñuy lekk yat ñu daan sukkandiku al min saatu mooy al asa ci làkku habasha historien wax na Suleyman ci jamono yooyu muy faatu mi ngi amoon juróom fukki at ak ñett toog na ci nguur gi birut ñeen fukki at ndax ba muy toog di doon bur booba mi ngi toll ci fukki at ak ñett te am na fa ñeen fukki at ci ngor gi lépp buñ ko muy juróom fukki at ak ñett wax nañ ginnaaw bu mu toogee ci ngor gi am ci ñeenti at la tàmbali sos tabax baytul maqdis foofu la suleymaan ak balxiis ak xisab jinne ja sàccoon jaaro ba ba toog ca sees ba ak natt bi ku yàlla natt woon lu mat ñeent fukki fan yoo xamante ni dafa ñàkk nguur gi te sa yooyu foofu la jeexe kon bi mu faatu mi ngi am juróom fukki ak ñett gannaawam doomam wóotu ko di ñuy wax ruuxa ya am moom Suleymaan ci boppam moo digle woon ni su ma fi jógee na ma wóotu ab nabi yu la woon muy dañ ko yónne woon waaye du doon toon mursal nabi la waye du won mursal mom momi bam fa joge mom dom ja tok na fa lu mat fukki at ak juróom-ñaar ginaaw ba domi doomam joju wotu fa ku ñu wax afiya ibnu ruhayan ak nguuram tok na fa juróom dom fukki at ak ñet ginaaw ba doomam ji ñu wax asa ibnu afiya tok don bur, donon nit ku bax waye nak dafa làggi won daf dan soox nga xamante ni jamono bu ne day am feebaru tànk maanaam metitu tànk bu koy dikkal doyadi googu yi mu doyadi woon ak ñàkk gi kattan tax na buur yi ko waroon yëpp xëy nañ koo daaneel ndax ñu mën a doon ngurub bani Israël googu ba am na xeex bu dox digganteem ak benn buur bu bokk ci buuri Ind mi ngi tuddoon ruux ruuxul Hind ànd ak mbooloo mu bare bari waaye yàlla yabalal ko ay malaayka ñu jàppale ko ba dàq buur boobu gañe ko ba mu leen gañee ba dàq leen ñu dem ca géej ga yàlla yabal fa ngelaw yu bare bare ak duusi géej yi seen gaal yooyu ngelaw li labal ko ba ruuxul xindi moom yi ci biir ngelaw loolu la faatoo ci ginnaaw bu ñu jógee ci xare boobu mu leen xare ak ñooñu wax nañ ni ci loolu lépp bani Israël continué waaye ginaaw bi ay buur wuutu nañ fa Suleymaan yoo xamante ni dañoo bàyyee jaamu yàlla continué di jaamu ay xiram ba le ba merum yàlla fekk leen ca moo tax mu yabal buur ba ñuy wax Baxtansar mu doon ku am doole mu ñëw xeex leen ba ngóor googu jeexee ci seeni loxo kon foofu yi mooy jeexitalu nguuru Suleymaan ak Daawuda ak ña leen wutuwaat ci bani israil alayhim salaatu wasalaamu ala nabiyina afdalu salaami wa anna taslim was dafa ci biir xikma yi nga xamante ni kon mu andi ci tuuti ci xikma yi nga xamante ni yàlla feeñaloon na ko ci luqmaan ndax dolli koo ko luqmaan ci hikma yim daan dénkaane mas naa wax doomam ni ko yow sama doom bul xam lu xam-xam ngir di ci puukare wanteeg borom xam-xam ya bul xam lu xam-xam ngir di ci werante ak ñu dese ñi bul xam lu xam-xam it ngir di ci ci jataay ya waaye it bul bàyyi xam-xam ngir dëddu xam-xam ak xeemem goo xeemem ak réer yow sama doom dénk naa la ngay tànn jataay yi ngay toog bu fekkee ni fekk nga ab jataay ñe di fàttaliku yàlla toogal ak ñoom ndax bu fekkee ni borom xam-xam nga yàlla dana la jariñ ci sa xam-xam bu fekkee xam-xam am nga xam-xam ci sa jëmmi bopp sa xam-xam boobu dana la jariñ te danañ la dolli xam-xam bu fekkee ni dangaa ré bu fekkee ni léegi amoo xam dinañ la xamal loo xamutoon bu fekkee ni dangaa fekk aw nit ñoo xamante ne duñ tudd yàlla bul toog ak ñoom ndax bu fekkee ni toog nga ak ñu fàtte yàlla kat te doon boroom xam-xam bu boobaa sa xam-xam dootul dootu la amal njariñ bu fekkee ab jaahil nga woon toog ak ñoo ñi dul tudd yàlla yi dañ lay dolli ak réer te mën naa am bu yàlla demee ba di leen mbugal fekkaale la fa mbugal ma danga nga ca bokk mu delluwaat mu doom ji li ma lay dénk mooy booy def lu baax mbaa nga di ko wax na nga ko def fa ka koy sàmm booy wax lu baax it na nga ko wax ak kay sàmm lu baax ndax na nga xam ni ka diggante am xarakuk tëll ak xaritoo mënta am ci seen diggante naka noonu diggante ku baax ku bon ak xaritoo du fa dox mukk te nit ku ne it kam sopp rek lay àndal nit ku ne it fa ñamuy fa muy dugg fa lañ koy boole moo tax bul dugg mukk ci jotaay boo xamante ne na dafa tuumaale ndax ku ànd ak kuy def lu bon doo mën a mucc ci lu bon mukk te ku mumut aw làmmiñam dana amuk rëccu yow sama doom doonal ab jaam ci tànneef yëpp nangu la doon seenu jaam waaye nag li ma lay dénk yi mooy bul xaritoo kàccoor yi yow sama doom dénk naa la nga doon ku am kóolute boo doonee ku am kóolute da nga doon ku woomal bul woon nit ñi mukk yit ni leen dangaa ragal yàlla te fekk sab xol ak kàccoor la feese del yow sama doom del toogaale ak boroom xam-xam yi te fab sa ñaari bati woom di ko sësale ci sa ñaari bati woom mooy sësal ci ñoom rek bul tàggu ñoom mu ko te bul ak ñoom ndax boo ak ñoom kat bu ëllëgee doo am seen waxtaan te loolu pertement bu mag la dama bu ne na nga leen di ñeewant cib laaj boo leen di laaj na nga leen di laaj ci ak ñeewant mooy bu leen bundoo xatal bu leen lottloo it ba tax ñu dila yokkat ndax boo leen lottuloo mooy teg leen luñ attinut dañuy tayel ci seen mbir loolu bul ko def dénk naa la it mbir mu la woon ginnaaw bul ko topp di ko sàkku waaye mbir mu la jublu si it tayal bul ko bul ko delloo dénk naa la mbir yi lu ñëw rek tayal waaye lu la woon ginnaaw it bàyyil loolu mooy li ma lay denk ndax topp lu la won gannaaw ak belloo lu la jublu si kat loolu yi des na ci xeebe xelum nit yow sama doom bu fekkee yaru nga ci sag ngone day da nga ci sag mag ni yow sama doom bu fekkee tukki nga yaa tukki